bonjour Gouy Gui 95. oui bonjour ma bonjour Babacar. Gouy Gui 95. qui est Gouy Gui 95. Gouy Gui 95. c'est la jeune talent le né 15 15 mois 95 à Malika. Gouy Gui 95 c'est la fils de tous les Malika tous les mondes tous les Sénégal tous les guy Gui. Mm-hmm. vous êtes un lutteur. oui moi je suis un mhm. depuis combien d'années. moi je 20 litres 2014 mois je 20 litres 2014 tu fais 5 combats 3 victoires 2 défaites. Mm -hmm. tu as dit euh, 15 mois 15 mois 12 mois mais 15 mois est-ce que c'est 15 mois. si nous à la vingt nous à la vingt cinquième siècle si la siècle évaluation tous les mois évaluation c'est ça moi parler le 15 15 mois quinze à Malika. la la cercle évaluation il faut mois évaluation les mois évaluation. ton dernier combat ça date euh, ça date euh, combien. le 23 novembre mois Baye Mandione de Mandione 2 waaw. vous battez Baye Mandione 2. oui tu battez Baye Mandione 2 le combat entraîné avec la sap avec tout la sapeur-pompier de la Guédiawaye la sapeur-pompier de la Guédiawaye tout mois entraîné ça moi battez Baye Mandione ton palmarès c'est combien de combats moi je palmarès je viens lamb 2014 je fais lamb euh, 4 ans 5 combats 3 victoires 2 défaites mhm. vous luttez en mbapat oui moi je mbapat moi je mbapat Malika Ben Borak Yembal Kër et dans la raison raison raison moi waaw moi quelle raison beaucoup raison Pire Ngaay euh, la raison ay Diofior Joal Bassoul Thiadiaye le les les villes qui en de qui la c'est des c'est des départements tu dis raison ah bon <laughs> raison ah, moi raison pour man raison c'est la ville c'est pas les mêmes uh-huh. ok vous êtes un combat cette année là non oui Aline Gueye promoteur annoncé moi combat mais moi je n'ai pas combat parce que guy Gui si combat moi fait et ma entraîneur Demba elle m'a dit pas combat parce que il faut guy gi battre Siteu si Gouye Gui battre Siteu moi combat actuellement moi entraîné avec Gouye Gui accompagné dans la guy gi pour guy gi battre Siteu si Gouye gi battre Siteu lendemain Abdoulaye Ndiaye confirmez moi Lac Rose Moussa Ndoye moi fait combat spécial mais est-ce que euh, battre Siteu est-ce que c'est facile pour Gouye Gui non Gouye Gui elle travaille ce n'est pas la Siteu Gouye Gui elle travaille beaucoup 450 kilos il les prend demandé Demba guy Gui il est entraîné 450 kilos il les prend il est assis prend assis prend assis ce n'est pas facile ce n'est pas facile en en trois mois Gouye 95 parlez tous les Guédiawaye tous les Malika tous les Sénégal venez vous regardez inchallah Lutte TV vingt vous soutient Gouye gi pour battre Siteu mais moi il faut annoncer un le 7 avril Sidi Diop elle est marraine moi Grand Théâtre Sidi Diop waaw elle est marraine moi marin marin parrain parrain non marin elle est marin moi 7 avril Grand Théâtre moi Gouye 95 parlez tous les Sénégal vingt vous moi Asata cent mille b pour Grand Théâtre ce n'est pas ce n'est pas c'était grand salle il faut moi acheter comme moi la marin il faut moi acheter beaucoup de tickets pour grand théâtre tous les personnes tous les Guédiawaye parce que Sidy Diop elle a un talent Baye Niass elle a un talent Baye Niass accompagnez moi Baye Niass accompagnez Sidy Diop grand théâtre le 7 n'est pas facile c'est moi le marin tous les Sénégal Demba trois vingt 20 Lutte TV tous les Sénégal vingt Kotsu 20 vous tous les Sénégal vingt vous le 7 inchallah mm mais Guy 95 tu as euh, Siteu c'est l'adversaire de votre homonyme mais est-ce que Siteu un lutteur très dangereux il est jeune il est dangereux dans le milieu. Siteu c'est la lutteur Siteu c'est la mais si Guy gi Siteu Siteu n'est pas Guy gi parce que Guy gi est a fait tous les takusan Ndakaaru Ndiaye Guy gi elle a fait un an huit combats avec Seigne Modou Niang guy gi Ela Takusaan tous les euh, Demba Diop Iba Mar guy gi n'est pas bés beaucoup pour Siteu guy gi travaille Siteu travaille moi guy 95 donné jë mais donné guy gi ndam incha allah mais guy gi Ela travaille Demba non n'est pas Siteu. est-ce que c'est facile. c'est pas facile parce que lambu si tu prends l'argent n'est pas facile tu entraîné mais guy gi elle travaille n'est pas pour Siteu guy gi elle travaille pour la carrière et la supporter mais n'est pas pour la Siteu parce que guy gi Siteu c'est la 30 secondes n'est pas facile. ok loolu leer na léegi ñu ñëw ci olof bi Siteu guy gi guy gi 95 noo ko gisee. waaw mooy li ma la wax rek combat la boo xamante ni vraiment ñu ngi koy waajal di ñaan yàlla ma ñu ci dugg nañ ci jàmm ak salaam. làmb boo xamante ni ñu ngi wax parce que ñun ki ñu nekk lañ xam te gëm nañu guy gi li mu liggéey du pour Siteu parce que 450 kilos ay caaxaan tat guy gi da koy squat di liggéey di wàcce di def 4 séances par jour gaa nii coach nii xam nga kon guy gi li mu liggéey du pour Siteu ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam incha allahu rabbi mais fàtte na def benn annonce ci français de équipe nationale aller à la coupe du monde équipe nationale aller ela ma ma ma góor laa Pape Ndiaye ah, ma Pape Seydou ma góol Pape Seydou Ndiaye ma góol équipe nationale Pape Seydou Ndiaye ma góol équipe nationale elle est là c'est le troisième gardien de la équipe nationale moi Gouye 95 annoncé tous les Sénégal tous les mondes vingt vous soutien équipe nationale avec ma góol Pape Seydou Ndiaye incha rabbi Sénégal prend ndam. est votre dernier mot. mon dernier mot remercier tous les Sénégal tous les mondes. remercier Lutte TV parce que Lutte TV c'est la lutte, la émission. Nous tous regarder euh, dans la contention. Je vous encourage tout. OK.